Ça va, merci. Ah,

Merci beaucoup. merci et rendre grâce à Dieu d'avoir battu campagne pendant 21 jours et aujourd'hui de, de, de, venir voter. Le fait de voter est l'acte peut-être le plus important dans une démocratie. Et je pense qu'il faut s'en réjouir que l'on puisse venir voter en paix et dans la sérénité. Je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu, d'une part, et d'autre part, surtout, se féliciter de la qualité de nos institutions et de l'État, qui a pu organiser parfaitement cette élection. Et, euh, Dieu merci et que ça se poursuive. Maintenant, je viens de, de voter. Je suis aujourd'hui ici en tant que citoyen, mais naturellement tout le monde sait que j'ai battu campagne pour le président Macky Sall et je suis sûr et je souhaite euh, qu'il euh, remporte largement les élections dès cet après-midi. Alors, l'opposition parle de tripatouillage euh, avec, disons, des duplicata et des ordres de mission, pour vous permettre de gagner. Je ne, suis, pas de manière très particulière le processus électoral, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des combats d'arrière-garde. Euh, le Sénégal a l'habitude d'organiser des, élections. On rend grâce à Dieu, ça se passe très très bien. Je pense que demain tout le monde sera au travail et on connaîtra dès ce soir le nom du président de la République. Je souhaite que ce soit mon candidat. Maintenant, euh, les, appréhensions de, futurs vaincus ne me posent pas de, problème. Vous êtes là en tant que presse, vous exercez vos missions librement et vous voyez que l'élection se passe correctement. Et après parcelles, vous allez faire un tour à Dakar On l'espère bien. À Modouba, ce n'est pas juste les parcelles. <laughs> enfin, on a été délégué régional, mais on a battu campagne particulièrement au niveau du département de Dakar. On s'est occupé quand même des parcelles à assainies, je pense que ça ira très très très bien. Mais globalement, la campagne s'est bien passée au niveau du département de Dakar. Ce qu'on peut dire aussi, que globalement, la campagne s'est bien passée pour notre candidat candidat Macky Sall. Et je pense que ce soir, il va être euh, réélu pour pouvoir poursuivre l'œuvre de construction du Sénégal, mettre en œuvre, poursuivre le, la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, dont je rappelle, le financement est déjà acquis. Et je pense que dès demain, on commencera à travailler. Titi wolof euh, bu avez une question euh, Amadou Ba vous nga ba y gannaaw 21 jours yi a def campagne est-ce que ça xel dal le sama xel dal na le maa ngi sant yàlla bu baax en tant que citoyen d'abord.

ndax euh, état bi ni mu organisé ak réew mi nañ ko téye mom motax ñu mëna def li kon lolu aussi ñun ñëpp ko wara rafetlu jëma a lolu baax maintenant def nañu campagne 21 jours ku nekk wane nga sa programme ñun amuñu woon jafe-jafe pour wax programme Macky Sall ndax gis nañu li mu def ci juróomi at yi am nañu yaakaar ni incha allah ni ñu ko sénégalais yi wane surtout Dakar waaye ci ñun en ce qui nous concerne fii ci biir Dakar ak particulièrement ci Parcelles Assainies ni ñu ko wane tey ci ngoon dinañu am ay résultats yoo xam ni dinañ ci kontaan lool. sàcc élection yi. waaw xamoon na kooku moom kooku moom kooku moom dëgg dëgg waxi ku daanu la ko. am hmm. na ñoo wax waxi ku daanu ci sareet la parce que nag yéen ay journalistes ngeen yéen a ngi fii yàgg ngeen couvrir ay élection Sénégal amul problème mu na ñuy sàcc élection nañ koy tripatouiller yooyu dëgg neex yàlla euh, ay waxi caaxaan la rek sama gis-gis. Euh, ñun daal def nañu élection yi institution yaa ngi dox. ku gis la naqari ci élection yi mën nga ko contester jaar fi nga war a jaar bu nekkee am nga dëgg yoon dana la ko may mais jaak yaakaaru ma ni kenn ci ñoom dina am dëgg ndax élection ni ñu ko organisé man gisuma ci dara lu sikk asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu sëy est-ce que xam nga Sénégal doon na dëkk boo xam ni ba mu amee indépendance ak léegi dafa yàgg Saya indépendance ba boleh ngeen yàgg waa 50 ans da nga xeeb doxal 50 ans jël sa tànk di dox 50 ans nga xam ndax bale na da nga koo xeeb dama am na dëkk yu amul indépendance ba léegi di bon gi am no indépendance xam nga la man waxuma la tey suñu dëkk dafa am événement c'est élection lan ne taluma ay problème li ma bëgg ngeen xam ko Bamba la di réewum Alaaji malik. di réewum Maam Baye

<laughs> Ah, ah man kat sëy man kat sëy man kat sëy moom muy ma la wax. waaw kon baax na kon léegi loolu weesu nan ko léegi nag muy dëkk boo xam ne sang yu baax yi ñoo ko uuf ñu juddu fi màgg fi fekk fi suñu maam yu baax oh. ñu uuf réew mi tàttagal réew mi. omma doomi réew mi ba jëf bàyyi fi jàngale bàyyi fi wax bàyyi fi bind bàyyi te lépp lu nu mës a wax baa ñu mës bind jàmmoo ci la bëggante si la solidarité si la waaye muñalante tamit si la kon nag réglé leen yéen uvaati qu'est-ce qu'il a lan la ne ñëpp dal mm-hmm. ku mën félicité sa morom nga félicité ko baa nga vocal ko ko bu koy fii mu fii ko bu la tontuwul nga xam tontu la waaye def nga li la war la paix laa bëgg woo ko allo félicitation mu sonné ba sonn daggul wax ko vocal boo ko waxee vocal bu ko jotee bu la kiiwul SMS ko boo ko mënul estati ko jàmm ni ñooy loolu laa bëgg ci miim réew te je pense que da nga nek ci lool. waaye mel na sama mère be. waaw nga xamanteni wax deug neex yàlla and ak Macky Sall tax. Wa keuram am ci ñoo xamanteni ma dikke ñaar mu àndal. Ñi and ak Sonko. ñi and ak Idriss Seck. Wa. chaque jour ay réer dekk mu rok sokola. Wa. waaw te am ni ñoy amul leneen di. amul leneen Motax sey, yalla yalla def jaam lool dara du ko dindi Motax nak ma bëgg ma bëgg ngeen xamni man de jàpp naa ni respecté nan ah, jàpp naa ni de su ma leen ñaanee wala ma diggal leen din ko def jàpp naa ko de kon nag maa ngi leen di wax ni fi ngeen tegoon seen tànk suba ba instant yi nga xam ne il est 19 heures 20 heures minuit moins continue na leen ko foofu rek jàmm rek di bëggal nag suñu yaay booy ndax nag tey ceebu élection yi toj na de tey ceebu élection yi tey élection yi wàcc na nag <laughs>

dono togg añ yi ma ni sen dama ni Sénat togg nay añ superviseur yi dafa ya topp Sénat ma ni Sénat togg na ay añ superviseur yi ñu àndal ñu superviseur ba nopp añ ba suur parti politique yi añ gouvernement yi ñëpp tey réew mi tey jàmm fi am li ci des nag moo di sëy ndax voté ndax un bon citoyen day voté bëgg sa réew fonk sa réew jox orma sa réew ba jour élection jot nga voté léegi sëy dangay ngay voté voté nga ndax voté wu euh, ñu daal di tëj émission bi ndax waaw euh, ndax nit moomul fen man de waxuma foofu nekk loo xamante ni man yooyu <laughs> waxuma koo voté de ah. <laughs> déedéet bu eh, eh. tey bisu journaliste yi la tey lu waay di laaj da ngay jàpp sa xel tey ñëpp réew mi ñëpp journaliste la tey dama ni waxuma sama question bu ko déplacé dama ni sëy fan nga voté waaw ba tax gërëm ñi nga xamante ni ñoom lañ eh. ñoo yor euh, lumière yor ko solennellement yor bu sincère ñi nga xamante ni wax dëgg ne xala ay jinne caméraman lu toll ci sept caméra kay ak ñi nga xam ne toog ci plateau bi di surveiller nit ñi ak di souffle yoo xamante ni seen yoon newu ci di ko déy nit ñi loolu dama bëgg nit day maandu gis nga réew Touré barke yonent bi waaw Rwanda tàkk na ni problème la ñàkk maandu moo ko indi waaw léegi léegi xam nga nuy def tegal foofu sa baaraam ndax yeneen invité yaa ngi ñëw mm-hmm. ñu daal di euh, kii foofu yaa ngi dégg daal di jëlaat beneen ñu eggale ci vote bi ñu nekkoon waaw sëy da jël <laughs>